tey nag comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii taxaw Pikine ci Kotaaf di waajal li nga xamante ni mooy ziyaara Thierno Adama Gaye muy góor yàlla bu ñëpp xam fële ci Nianga Edy lii nag mu nekk euh, waa commission bi nga xamante ni wala waa cellule bi nga xamante ni wala daayira bi nga xamante ni ñoo nekkee wàllu Dakar ñu war a départ ci convoi bi jëm nag tey Nianga Edy ca Fuuta waaw gis ngeen suñu ginnaaw oto yaa ngi nii ñu ngi waajal gan yaa ngi ñëw pour der te incha allahu taala fas na yéene ku nekk xam na ni Fuuta du fii waaye fas na yéene ànd ak yéen ci convoi bi ànd ak yéen tamit ci li nga xamante ni mooy événement bi waaw dinañ am ñu nga xamante ni lenn ci organisateurs yi nga xamante ni ñoom la ñu bokk di liggéeyaleel ci mbir mi ñu ànd ak ñoom ci wàllu reportage bi dinañ leen woon incha allahu taala lépp loo xamante ni nekk na ci wàllu yoon bi muy convoi bi lépp loo xamante ni incha allah tamit suñu yeggee muy góor gu baax boobu lépp li nga xamante ni làmboo woon na ko ci wàllu dëkkuwaayam ci wàllu barab bi nga xamante ni fa la tëdd muy raw doom ak ñi nga xamante ni mooy kilifa yi nga xamante ni dinañ ñëw ci bés ba yooyu yëpp nag suñ ci yeggee dinañ am ñoo xamante dinañ leen ko gën leeral ci biir mbir yi kon nag dañu leen di wax rek di leen bàyyeeg lenn na ci ngeen seetaan tuuti image bi delloo yéeg ci ay interview yi nga xamante ni ci wàllu commission am ñoo xamante ni doxalee nañ ko mbokk yi kon nag ñu ngi leen jox léegi léegi ci barke قد سجل إلى أئمة كانوا أحيار وأعرار من لا يخيب أبدا جاء يسأل يا مانعا عن سؤول صار أحرار ngeen ki nga xamante ni moom nuy taxawal dañ koy bàyyi rek mu présenté ci li nga xamante ni mooy ziar bi jëw muy Thierno Adama Gaye ca ñaangay di waaw jërëjëf maa ngi tudd euh, imam Hamidou Sow bokk ci commission d'organisation euh, toppatoo mbiru euh, particulièrement oto yeeg yu demee noonu quoi organisationnel donc ci lañ nekk nii ci nga ñu fekk alhamdulilah rabbil alamin dañ ko doon waajal yegg na tey la 11 ñoo ngi ci nit ñaa ngi ñëw benn ak benn euh, xam nañ ni ñaan yàlla rek balaa moo naaj ñu fee jógee ndaxte comme ni ñu ko waxee woon dëkk bu sore la tali yi xaw doon noonu donc pour ñu mën a teel a yegg. am euh, gis nañ convoi la tey ngeen am ku nekk xam na ni fi ngeen jëm sore na muy Fuuta tey yenn fan yan ma étape ngeen xamante moom ngeen def pour yegg Fouta soo leen jógee fii. waaw ñun euh, euh, normalement bu ñu jógee fii amuñu benn fu ñu war a def escale lu dul fa ñuy añee ji muy Dagana aslem Dagana kër Seyni May Dieye foofu rek mooy euh, étape bi maintenant nag oto dafa am ay pléiades mën na am ay farata lu mel ni kuy tuur ndox wala leneen ak leneen waaye bu loolu amul daal benn arrêt lañ am muy Dagana pour fu ñu war a añee bu ñu paree foofu doog a jàll dem ñaa nga it. ziar la boo xam ne ñu koy defal Ceerno Adama Gaye ñu bëggoon tuuti benn minute rek wala 30 secondes yoo xam dañuy waxal lan moo war a ziar ci sëñ nga xamante ni mooy Ceerno Adama Gaye waaw xam nga nit ki boo bëggee li mu yor da ngay ànd moom ci li mu nekk Ceerno Adama Gaye yàlla da koo baaxee ma ne ko gan may ko ba may ko lu kawe njortom mu nit ku baax ba pare mu sédd ko mboolee yow ànd ak ñëpp nangu ci nangu ko leen ko nangu leen ko jox kon bu ko defee taalibaam yëpp daan def ay ziyaara pàcc pacc pàcc pàcc moom si xarañam ak gis àdduna ak yàlla may ko euh, gis-gis bu rafet mun nañ ko def benn ziyaara donc depuis 40 ñoo ko def benn ziyaara àdduna ji yëpp ñun dañuy teel a dem rek pour accueillir gan waaye boo demee ba sur place dina yow yàgg faa dem di nga xam ni ziyaara bi du ziyaara ñànga ziyaara international la ni ñuy def fii jóge fi am na ñuy jóge Bami euh, Mali am na ñuy jóge Bamako am na ñuy jóge Côte d'Ivoire fu nekk di di fa jóge donc lu ko yàlla may la. dafa jox yàlla boppam yàlla delloo ko xolu nit ñi du ko nit ñëpp d'accord ak moom te woowul kenn ñëpp ko fekki woowul kenn ñëpp ko fekki jërëjëf gis nañ ne ni nga ko waxee ziar international la waaye ku dajale mbooloo mel noonu ñàkkul loo xamante ni sax donte le kilifa yi dinañ ko jottali yéen kaddu ngay jot di ko ndénk taali bi ak mbokk nga xam ne ñu ngi fas yéene dem ci ziar waaw waaw kaddu yi yàgg naa mooy li nga ko waxee rek kaddu ziara kenn demu fa ngir lekk kenn demu fa ngir naan kenn demu fa ngir solu kenn demu fa ngir mbooloo dañ fay dem pour jëriñu jëriñu nag lan lañ mën a jëriñoo euh, walakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla dafa ni alayhi salatu wasalaam ko ngeen xool jikkoom ngeen toppatu ko boo ànd sëriñ tamit noonu rek mën a ànd ak moom xool lan mooy jikkoom lan la doon baaxee lan la doon topp doon eh, soxnaam lan la doon topp doon waa këram nan la doon formé nit ñi nan la doon baale nit ñi nan la doon jaamu yàlla nga topp ko loolu rek mën a mën a jëriñ li si des bu ñu fa demee defuñu loolu daanaka eh, coono ak xiif ak mar moo ñu fay indi yoon nag yaakaar naa taxuñu warul tax kenn jóg imaam ñu kàddu yi ngay mujjee rek pour ñu yeggaat ci liggéey comme que ñu ngi waaj départ. waaw di sant yàlla bu baax rek di ñaan yàlla ni ñu ko tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim yàlla nañ ko yeggale alhamdulilah rabbil alamin am yoonu jàmm bu e, sedd tamit di wax nit ñi ku nekk si suñu e, may keneen ki e, xel bañ am samaay ma bañ am xëccoo ndaxte mbiru diina la xol la lañ ci bëgg ngëm lañ ci bëgg ko dakoy Diop imaam kon ñu bàyyi nga yegg ci liggéey bi yal na teg ci yoonu jàmm te mottali yéene amin Diop amin Diop amin amin jërëjëf yéen tamit yéen waa vraiment euh, Chérif Chérif Dabakh TV ñu ngi leen di gërëm bi ñuy tàmbalee ba tey ni ngeen ko waxe woon bàyyiwu leen dara yéen yàlla leen yàlla euh, yàq seen euh, yokk seen taxawaay dëgëral ko waaye tamit sëriñ bi mu Chérif yal na ko yàlla may taxawaayam bi mu bëgg si réew mi yàlla dimbale ko ci moom ak njabootam gi yëpp di ko bu baax rajo Sow kon nag mbokk yi comme ni leen ko waxee rek dinañ egg ci yeneen ñi nga xamante ñoo organisateur wala ay ñoom membres yoo xam war nañ dem incha allahu taala jërë ngeen jëf. bina faghfir li abdin min al azami ayyaani mawdan law kana babuka la yati du إثم وما دعيت عفا عن كل أوزار أوزاري وفي كتابك ربي إنما صار ànd ak yéen a ngi ànd ak ba tey eh, seen chaîne Chérif baax TV gis nañu am ngeen kenn koo xamante ni moom la ñu taxawal nii mu bokk ci membre d'organisation bi sëñ bi ñu ngi lay ñaan nga présenté ba pare d'abord tur bi naka la ak bon ñu ngi lay nuyu di la sant di la fay maa ngi tudd musa Diaga ci commission d'organisation bu Thialawane ziare Thierno Adama Gueye. bon commission organisation mu tudd Thialawane bon lan mooy Thialawane. Thialawane mag ñi ñoo ko gën a xam ñu ne woon Thialawoon wolof la daal bu xóot daal tekki man dina may xaw a diis tuuti waaw waaw. kon gis nañu ziar bi kon lépp dafa tegu ci li nga xamante ni mooy membre d'organisation yi muy ci organisation bi nga xamante moom la tuddee Thialawane lan moo fas yéene nekk seen liggéey ci ziar bi ak li nga xamante ni moom la ñu a départ ni fii ci Pikine Ucataf waaw comme ni nga ko gisee commission organisation bi ñoom ñooy dalal pèlerin yi pour kenn ku ne boo ñëwee nga xam ban oto nga jëm ak nan ngay demee bu ñu eggee it accueil bi ñun ñoo koy yor ak bagage yi ñu gérer ko bu ñu yoree bagage yeeg yëpp kenn ku ne pour sa dara mun a bañ a am benn problème bu ñu yeggee jàmm nag li ci des euh, ñu jublu ci wàllu gàmm geeg ziyaara baag yooyu yëpp daal ci lu ñu loolu lu ñu dégg ci wàllu woowu waaw. bon gis nañ ci wàllu organisation bi yan jafe-jafe ngeen ci jànkonteel ndax parce que nekk xam na ni Fouta sori na waa ñu koy defal góor gu tedd góor gu sell muy Thierno Adama Gaye li nga xamante moom nga fas yéene def ci wàllu yéene coono yi ngeen ci daj est-ce ngeen ko yëg wala doo leen ko yëg. vraiment coono gi daanaka doo ko yëg coono gi doo ko yëg mais benn jafe-jafe rek moom mooy faral di am te bu ñu sañoon mu wàññeeku mënta ñàkk ndax dëkk aussi ñi lay aar ci réew mi mënula la ñàkk mais tardement bi léeg-léeg lu metti la ci ñun nga jëm fu sori kaaraange gi téela lu yàgg-yàgg day metti ci toogaay bi nga yor ak ay mag ak ay xale waaye moom mënta ñàkk ci kuy voyager kaaraange xool la ñu xool li ngeen di def mais ñu ngi ñaan wàññante ak euh, daal ñu xam nu ñuy toloree ñu xam ne vraiment ñun ñëpp ñoo bokk yéene te it lu jub ak lëg moo ñu tax a jóg ci góor gu tedd gi waaw. jërëjëf lan mooy sa kàddu dénkaane ci li nga xamante ne mooy yoon wi ñu jëm ak fu ñuy jëm. muñ yaatu yegg ak jàmm loolu lu ñuy ñaan Dabakh TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm gis nañ seen taxawaay ci ziar bi. yëpp yàlla yal na leen yàlla taxaw ba ngeen ngeen yokk ba yëkku bi jaay Seydina Muhammad jërëjëf mbokk yi comme ni ñu ko waxee woon rek ñu ngeen leen di nuyu bu baax a baax incha allah jërëjëf يكيد إذا بقنا فما دعيت غفورا كل أوزاري وصبرا في نعم لم أحصي عدتها والشكر يا ربي أعياني أحصاري كلا ياتي ذو إذا فما دعيت غفورا كل أوزاري وليس بر ورقنا حالات ذمتنا من قصد أبرار لو كان بابك لا يأتي ذو إثم وما دعيت غفورا كل أوزار ولا تكرمني إلى أقبارتي عوجا ولا شكايات أسقاني بأغياري لو كان بابك لا يأتيك بترجنا فما توعدنا فوق ونقول ملتبسا ولا يدنس بحر العفو أكداري لو كان بابك لا يكيد أجمل أمد عيسى غفور أن كل أوزاري لو لم تكن الرحمة رحمن قد سبقت كن لبثت من هيبتي في دين أخطائي لو كان بابك لا

اليوم يا عاري لو كان بابك لا يبيد كنا فما توعدنا غورا كله أوزاري أسترونا كما فيني يا الله يا ربي زحزحني عن النار أسترهنا ما تدمع يا الله يا ربي زحزحني عن النار عن النار ووالدي وأشياخي وشيعتنا أحبتي وذوي الإسلام صلاة وتسليم على قمر من نوري ليل ما ملنا من أنواري أسطرنا ككمالي معا عائبنا يا الله يا ربي زحزحني عن النار عن النار من نوري ليل وما نلنا من أنواري من نوري ليل وما نلنا من أنواري من نوري ليل وما نلنا

إله إلا أئمة الله